والقلم وما يسطرون xam ngeen ne tey jii mooy dépouillement bu njëkk bi ci concours boobu nga xam ne compagnie C3S mi ngi koy taxawal at mu jot tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ñu toog ak benn ci mbooloo yi nga xam ne ñoo séq liggéey bi toog ak borom xam-xam bu mag di kilifa Serigne Sam Mbacké ngeen xam ko di borom xam-xam di jàngalekat xam daara it lii ñuy waxtaanee muy mbind mu am ci xam-xam lool. xam ngeen ne génn na ci réew mi représenté Sénégal ci Arabie Saoudite di ko ñu xam Serigne Sam concours bi bi mooy troisième édition bi def nañ ko 2018 def ko 2019 def ko 2020 ana ban yëg nga ci am boo ko comparé gi passé euh, bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu euh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baax di sant bu baax euh, sëriñ Omar <clears throat> ci liggéey bi ci taxawaay bi ni nga xamee concours bi ci euh, ngëneelu ci mbaaxaayu ci taxawaayu C3S bi laaj Hadj jiite te sëñ Fallou ni ci kanam ñu ànd liggéey bi ak ñi ko seqal ñëpp tey ñu ngi fii ci CES ci troisième édition bi mu di def may dépouillement candidat yi nga xamante ne bi maanaam ñoo bokk ci concours bi ren waaye euh, par rapport ak concours bi ni muy doxee première édition deuxième édition troisième édition bu ñu xoolee avancement bu mag moom la am parce que buñ xoolee ci ci ci benn ci wàllu ci wàllu jëmmi candidature bi ren gën na bari au niveau national buñ xoolee am nañ mille deux cent sept candidats kon lim boobu lim bu mag la mel na ne mosu ci àgg ñaar bi itam buñ xoolee ci wàllu liggéey bi dépouillement bi ñuy liggéey fii liggéey la boo xam liggéey bu sérieux la liggéey bu metti la parce que ñu ñëwee fi ñetti commission lañ def commission bu nekk nekk à quatre <clears throat> mais li ñuy liggéeye liggéeyee maanaam maanaam triple commission maanaam euh, correction la ñuy def da topp commission un day topp ba pare jox commission deux mu toppaat lépp ba pare jox commission trois mu toppaat lépp ba bañ ci soo ba léegi ci loolu lañ nekk liggéey bi actuellement on peut dire que bañ xëyee ba léegi mi ngi door a xaaj ngir liggéey bi pour pourtant pour xam te ñan la ñuy jël ci entre ñi fi nekk ci ay candidature ñan la ci retenir war war cee jël trente ay góor war cee jël bis ci ay ci ay jigéen ci ci ci ni ñuy ni ñuy liggéeye avancement bu mag la ni ñuy liggéeyee ni man na ni mosuñ koo liggéeyee par rapport ak maanaam ya ya nga xamante ni moom weesu la. jërëjëf Serigne Sam yaakaar naa ren ngeen tàmbalee régionalisation concours bi pour mu dem ci région yi ren yéen a ko tàmbalee maatam ndax yéen a ngi waajal yeneen région yi déwén ci ñi nga xam ne pare nañ jur bokk ak ndax critères yi ñuy tànnee benn critère bi la wala day wute. waaw loolu nga wax régionalisation loolu mën nañ ne ren nañ ko commencé commencé ko région Matam ngir lan ngir gis nañ ne mooy région bi gën a active ci concours bi premier nusxa ula bi nusxa sànniye bi par nombre participants ba fay musul am ci benn région par rapport ak boo génnee région Diourbel looloo tax ren ñu ne woon nañ def benn imtiyaasat boo xamante ne bi foofu lañ koy commencé defal leen concours boo xamante mën nañ local la génn fa première génn fi deuxième génn fi troisième euh, ña fa génne nag ñu nekk ñu ñu teewal région Matam au niveau national loolu foofu lañ ko commencé te dañ bëgg itam mu law ba ci région yëpp ndax région la boo xamante ne bi maanaam euh, mais nag ca nañuy bindee au niveau national même question la même correction lay nekk mais local ban ba ñuy def nag ñoom dañuy bàyyi waa waa waa Matam corriger seen bopp toppal seen bopp bu paree nag ñu yónnee ko fii ñu def classement bi mais au niveau national moom critères yi benn la ñoo bokk même question ñoo bokk itam maanaam ni ñu maanaam ni ñu koy corriger waaye nag régionalisation ren lañ ko commencé mais dañ bëgg itam mu law ba ci région incha allah boo xoolee la fa la fa bindu daanaka jege na 700 candidats foofu ñu bëree bëri ba bokk nañ fi ren. jërëjëf Serigne Sam Mbacké Serigne Sam ku wax bind wax mokkal kon kii bokk foofu mu mokkal bu mokkalee du doy foofu mu mën a bind boole ci. ana ban message ngay lancé ñi ne ci daara yi te damaa dégg sa wax nga wax ne ki mokkal alquran te mënta bind responsabilité bi du ci moom ci ki ko jàngal la ki ko jàngal ba mu mokkal war na ko mën a jàngal bind ana ban message ngay lancé daara yi ak ñi nga xam ne ay ndongo daara lañ mokkal te mënuñoo bind wala ñu mën a bind te mokkaluñu salaamaaleykum waaw loolu nga wax suñu Omar kontaan nañ ci bu baax parce que damay gis souvent ñuy ñuy yedd ñuy yedd donga yi dama ne yi li leen jàngal ñu ngi koy man alquranul karim fu ñu dem ci première yi la ñuy bokk dañ leen koo jàngal kon buñ toogee ne dong yi dañoo mënta bind ñun yaraanga bi ci ñun lay dellu ñoo ci jiitu buñ leen ko jàngalee bind moo gën a yomb jàng moo ko alxuraan karim fañ jaar ba mokkal ku fa jaar da nga mën a bind ci coono boobu daagu foofu kon dañ leen a jàngalul bind mais buñ leen ko jàngalee danañ danañ mën a bind ni nga xam ne noonu la ñu mën a binde léegi nag ñaar am na foofu bari na lool ñoo xamante ni bi maanaam ñi ngi jàng di mokkal loolu mënagu ñoo bind ñooñu nañ jéem a euh, tadrib dong yi jàngal leen bu baax a baax bañ mën a bind niñ mën a mën a niñ mën a mokkale daara yooyu am na ci ñoo xam ne xam nañ leen mais daara yi nga xamante bi ñu ngi fi itam mën a bind lool mais mbind mi day day xaw a day tooy lañ seetlu foofu mooy li may wax ci seen daara yi la jëm aussi itam jëm ci candidat candidat yi mooy lan nañ gën a góorgóorlu baax ci maanaam ci li ñu wooye maanaam ras rasmu ak lu ci aju muy nit ñuy bind li li war a xonq ñu di ko xàmmee bu baax yi war a aj ñu di ko xàmmee loolu daanaka ñu baree bari danañ mën a bind lool mais bu ñëwee concours fa la ñuy daanoo daaw rapport bi ñu bindoon observation yi boole woon nañ ko ci donga yi muy ñiy bokk nañ gën a góorgóorlu delluwaat ci boole yi delluwaat ci ay xonq xoolaat ko bu baax a baax a baax ko ndax arasmul osmaani mbind la moo xam ne spécialement bokkut ak langue arab dara daa am nuñ koy bindee danga koy jàng da nga koy xam mën a jàng alxuraan te taxu koo man dégg arab koo man da nga koy jàng man ko dañ koy jàng ñu jàng ñu man ko la ci gis na mooy xale ci daara yi nañ jàngal di leen jàngal beq ñu bi alxuraan karim ñu leen ko toppal suñ ko defee ba pare su boobaa buñ bindee kaamil ñu toppaat ko ñu demee ni bu ñëwee danañ mën a jàng mais daaw ñu bëree bëri mën nañ bind lool mais li seen problème mooy rasmu lañ mënut loolu itam nañ ci dalaat bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ci daara itam ñu ñu commencé di jàngal gone yi rasmu ñu di ko woyaale diir bi ñu def di mokkal ku teel a jàng bind bala ngaa mokkal da mën a bind bu baax baax loolu moom lu wér la ñàkk jàngal rek moo fi nekk mais xale li leen jàngal lépp ñu ngi koy mën ñu ngi koy mën bu baax jërëjëf sëriñ yooyu jàllee kon ñu laaj la sa kàddu gu mujj rek ndax concours baa ngi dem mi ngi jël auteur ni ñaa ngi koy xam nit ñaa ngi koy miin ana ban kàddu gu mujj ngay tàggatoo ñi bàyyi xel. waaw kàddu gu mujj rek maanaam mooy sonjaat candidat yi ñu gën a góorgóorlu waajal bu baax xam ne maanaam état bii ñëw ci ñi ci mos a bokk xëy na xam nañ ko mais ñi ci mos a ñu xam ne état bii ñëw laaj na mokkal alxuraanu karim bu baax laaj na ànd ak sago bu baax laaj na ak dal bu baax laaj na tey bu baax a baax nañ nafaraat euh, kaamil yi te di ko xool bu baax di bàyyi xel maanaam niñ koy bindee ñu xam ne concours bii di ñaw concours la boo xam ne spécialement dafa sévère parce que ay enveloppe la ñuy teg yuñ séparé ay question moo cee nekk boo ñëwee enveloppe boo tànn la ca nekk moom ngay bind kon loolu laaj na ko xoolaan bu bëri du doy koo ci xam ne la nga bindoon bi nga ko indi fi nga koo xool na nga waajal te xam ne xamoo question ban ngay tolloon laaj na mokkal bu wér laaj na mën a bind bu wér laaj na man rasmu bu wér ñett yi mooy tax man a génn ci concours bi kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax sëriñ Sam ci kàddu yu am solo yi ak leeral yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullah أنت بنعمة ربك بمجنون